Luk saar ñaar fukk ak mburu ya amul rewiir jege woon na te ñu di ko wax bisu jéggi ba saraxalekat yu mag ya ak xutbakat ya di wut pexeem rey lu yeesu ndaxte dañoo ragaloon nit ña noonu seytaane daldi solu yuda mi ñuy wooye iskariyo te mu bokkoon ci fukki taalibe ya ak ñaar noonu yuda dem waxtaani ak saraxalekat yu mag ya ak kilifay wattukati kër yàlla ga ba xam nan la leen di jébbale yeesu ñu am ca bànneex bu réy di ko xaalis yu daan nangu di fexe jamono ju leen mën a jébbal yeesu fu mbooloo ma nekkul bésu màggalu mburu ya amul lawiir agsi ca bés boobu lañu waroon a rendi mbote màggalu jéggi ba noonu yéesu yebal piyeer ak yowaana ne leen dem leen defaral nu reeru jéggi ba ñu ne ko fan nga bëggoon ñu defare ko fa mu ne leen bu ngeen duggee ca dëkk ba góor gu yenu njaq lu def ndox dina taseeg yéen topp leen ci moom ba ca kër ga muy dugg te ngeen ni boroom kër ga kilifa gi nee na ana néegu gan bi may lekke reeru jéggi ba man ak samay taalibe noonu dina leen woon néeg ba féete kaw te yaa ñu defar ko ba noppi foofa ngeen koy defare ñu dem gis lépp ni leen ko Yeesu waxe woon noonu ñu defar reer bi bi waxtu wi jotee Yeesu toog ak ndaw yi ni leen yàkkamti woon naa lool lekk ak yéen reeru jéggi bii laata ñu may sonal ndaxte maa ngi leen koy wax dootuma ko lekk mukk lu dul ba kera mu mat ci nguuru yàlla noonu mu fab kaas daldi sant yàlla ne jël leen kaas bi seddoo ko ndaxte maa ngi leen koy wax dootuma naan ndoxum reseñ mi ba kere yàlla di tëral nguuram ginnaaw loolu mu jël mburu sant yàlla damm ko joxleen leen ko ne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 waaye ki koy wóor dina torox noonu taalibe yi di laajante ci seen biir kan ci ñoom mooy nara def loolu taalibe yi di werante ngir xam kan ci ñoom moo gën a màgg yeesu ne leen buuri xeeti àddina dañu leen di dóor yetti nguur te kilifa yi dañuy sàkku ngërëm waaye yéen bu leen def noonu ki gën a màgg ci yéen na nekk ni ki gën a ndaw te njiit mel ni surga ki toog ca lekkukaay ba moom ak surgaam ñoom ñaar kan moo ci gën a màgg xanaa di ki toog ci lekkukaay bi waaye man maa ngi ci seen biir ni surga yéen nag yéene ñi ànd ak man ci samay fitna man nag jox naa leen sañ-sañu nguuru ni ma ko sama baay joxe dingeen lekkandoo te naanandoo ak man ci sama nguur te dingeen toog ci jal yi di àtte fukki giir ak ñaar yu bànni Israyil Yeesu teg ce ne Simon Simon seytaan ñaan na ñu jébbal leen ko ngir mu teqale leen ni ñu teqalee dugub ak xatax waaye man ñaanal naa la ngir sa ngëm dëgër te yow boo dellusee nanga dëgëral sa mbokki taalibe yi piyeer ne ko borom bi àttan naa ànd ak yow ca kaso ba ci dee sax yéesu tontu ko ni piyeer maa ngi la koy wax balaa ganaara sab tey jii dinga weddi ñetti yoon ne xam nga ma noonu yéesu ne leen ba ma leen yebalee te yóbbaalewuleen woon xaalis mbuus walla dàll ndax ñàkkoon ngeen dara ñu tontu ne déedéet mu neeti leen léegi nag képp ku am xaalis na ko jël te ko am mbuus na ko jël ku amul jaasi na jaay mbubbam jënde ko jaasi ndaxte maa ngi leen koy wax lii mbi ni mi wax faw mu am ci man bi mu nee boole nañu ko ak ñu bon ña ndaxte loolu jëm ci man mi ngi mat noonu taalibe yee ne ko borom bi ñaari jaase ngi mu ne leen doy na noonu yeesu génn dem ca tundu olivier ni mu ko daan defe naka jekk taalibeem ya topp ci moom bi mu egsee ca barab ba mu ne leen ñaan leen ngir bañ a daanu ci fiir noonu mu dànd leen ba fu aw saan mën a toll daldi sukk di ñaan ne baay soo ko bëggee tegil ma kaasu naqar bii moona bu mu doon sama coobare waaye na sa coobare am noonu malaakam yàlla daldi koy feeñu may ko doole ci biir tiis yéesu gën a sawar ci ñaan gi ñaqam mel ni lumbi deret dal ci suuf bi mu ñaanee ba noppi mu jóg dellusi ci taalibe yi fekk leen ñuy nelaw ndaxte seen xool dafa sonnoon ak tiis noonu mu ne leen lu tax ngeen di nelaw jóg leen ñaan ngir bañ a daanu ci fiir bi Yeesu di wax mbooloo mu bari agsi ku ñuy wax Yuda te mu bokkoon ci fukki ndaw yi ak ñaar jiite leen Yuda jigéen ci Yeesu bëgg koo fóon waaye yeesu ne ko fii foon ngay jëbale doomu nit ki ay noonam bi ñi àndoon ak yeesu gisee liy bëgg xew ñu ne borom bi ndax nu dóore jaasi kenn ci ñoom nag dóor surgab saraxalekat bu mag ba noppu ndeyjooram dagg waaye yéesu daldi ne bàyyi leen mu laal nopp waaja wéral ko noonu yéesu ne saraxalekat yu mag ya ak kilifay wattukat yi kër yàlla ga ak njiiti xeet wa ko jàpp si woon jóg ngeen gànnaayoo jaas yi ak yet mel na ñuy topp sàcc moona maa nga woon ak yéen bis bu nekk ca kër yàlla ga te jàpp leen ma waaye léegi seen waxtu la di jamonooy lëndëm ñu jàpp yeesu yóbbu ko ca kër saraxalekat bu mag ba piyeer topp fu sore amoon na taal ca diggu ëtt ba ay nit toog wër ko piyeer itam toog ci seen biir ab mbindaan gis ko mu toog taal bi di ko leeral mu ne ko jàkk ne nit ki itam àndoon na ak moom waaye piyeer weddi ko ne soxna si xawma kooku nees tuuti keneen gis ko ne yow itam ci ñoom nga bokk piyeer ko sama waay bokkuma ci bi ñu tegee lu mat waxtu keneen dikkaat ca wax ja ne ci lu wóor nit ki àndoon na ak moom nde galile la jóge waaye piyeer tontu ne sama waay xawma li ngay wax bi kàddoom di daanu faf ginaar daldi sab noonu boroom bi gestu xool piyeer te piyeer fàttaliku la ko borom bi waxoon ne balaa ginaara sab tey jii dinga ma weddi ñetti yoon piyeer daldi génn di jooy jooy yu metti saar ñaar fukk ak juróom benn fukk ak ñett ba nit ñaa nga jàppoon yéesu di ko ñaawal ak di ko dóor ñu ngi takkoon ay bëtam di ko laaj naan ko yow wax nu ci kàddu yàlla ku la dóor ñu ngi ko doon tifaarit yeneeni saaga bi bët setee kuréelu njiiti xeet wa maanaam saraxalekat yu mag ya ak xutbakat ya daldi daje indi yeesu ci seen kanam ñu ne ko soo dee almasi bi wax nu ko mu tontu leen ne su ma leen ko waxee du ngeen ma te su ma leen laajee du ngeen tontu waaye ginnaaw si tey doomu nit ki dina toog ci ndajooru yàlla aji kàttan ji noonu ñépp ne kon nag yaay doomu yàlla ji mu tontu leen ne yéen ci seen bopp wax ngeen ne moom laa ñu daldi ne nag lu ñu doyati seede léegi ndegam nun ci sunu bopp noo ko nangoo ci gémmiñam